Quand on est une jeune maman, on n'est pas toujours sûr de ses gestes. Choisir les meilleurs soins pour son bébé est parfois difficile. Moi, j'ai demandé conseil à une puéricultrice. Elle m'a recommandé BabyMed. Des soins hypoallergéniques adaptés à la peau fragile et sensible de mon bébé. Une gamme complète pour que chaque toilette soit un moment de tendresse qui participe à son bien-être. BabyMed, son premier soin أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله ككرمه وسلطانه الخضيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي العظيم الحمد لله نصلي ونسلم على سيدنا والنبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa asxaabihi wa xulafaihi wa man ixtafa wa man nahaja nahjahum wastanna bi sunnatihi waqtada bihi wa bihim bi ixsaan ila yawmi ddin mbokk jullit yi mbokk Ali TV ñu ngi leen di wax assalaamu taala wa barakaatuhu tabaarakallahu seen mbokk daara Aliou Kandji ñoo di ànd ak yéen ci émission bi ñu tuddee la vérité absolue kalimatul muy faral am fii ci Ali Imran TV tabaarakallaahu ñu ngi leen di ndokkale bu baax tabaarakallaahu di kontaan bu baax ci téléspectateur Ali Imran TV di leen nuyu di leen ziar di leen baalu xaq di leen baali xaq ci koor gi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla boole jéggal yàlla ba mu nekk suñu mujj koor yàlla nañu ko teewee at yu baree baree baree bëri yàlla nangul ñu xiyaamana wa siyaamana yaa i sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nangul ñu nawaafil yi ñu ciy def nangul ñu koor yi ñu ciy def yàlla bu mu niil yàlla bu mu nekk jëfi kese rek ndax yonent bi sallallahu alayhi waxoon na kat ne nit bu ooree na fexe ba tënkaale ay cëram tënkaale boppam ba mu dugg ci ay caaxaan ndax waxoon na man lam yada amala sóori wala man lam yada qawla sóori wal amala bi fa laysa lillaahi aaja an yada taam wa sharaab yonent bi sallallahu waxoon na ci xadis ne yàlla amul soxla ci ngeen bàyyi lekk ak naan lu ne dafa fekk ni yéen boobu bàyyi woon ngeen yëfi caaxaan ak waxe caaxaan tabaaraka la yàlla tënkal ñu suñuy cër ba duñ jugg ci lépp luy tuddee caaxaan wala lu nu nuru ndax xiif markat ni mu méttee nga nekk ci ba ngoon jot yàlla dogal ñu ne yow kat sa koor gi amuloo ci leneen lu xiif ak mar yàlla nañ ci yàlla musal ndax waxoon na mu yonent sallallahu alayhi wa sallam waxoon na rubba saa'imin lam yanal min saw ila al juu'a wal atash bari na aji oor joo xamante ni kooram kat amu ca lenn lu dul xiif ak mar aadana allah min zalik yal nañu yàlla musal ci loolu ñu ngi ñaan tabaarakallahu yàlla bu koor gi nekk suñ mujj koor di nit ñi ñu gën a góorgóorlu nu weer wi gën a yokk gën a gën a gën a doxee rek tiyaaba ji di di bari waaye bu mu gën a jëm kanam ngay tekki sa noom sa euh, ceinture jaamu yàlla laxasaay gi nga laxasoon ngir di jaamu yàlla bul ko tekki mukk la yàlla waxoon kenn ca ñamu yónni woon ne ko waabud rabbaka atta yaatiyaka al yaqiin fi noo binduma la leetar fi noo waxuma la ne lépp loo defoon bàyyi naa la euh, jéggal naa la ko <laughs> te bu ko defee bu boobaay da tax mu doy waar maanaam daal fii yaa ngi ci kaw suuf bul découragé jaamu yàlla bul tayal bul yokkat kon nag nit du yokkat nit du tayal ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ci benn xadis ne toggul leen seen bopp lu ngeen man ndax yéen ki du ngeen yàlla du yokk mukk fi nu yokkatu leen kon kat nu weeru koor yi gën a jàllee nit ki dafa war a gën a góorgóorlu ci jaamu yàlla dafa gën a war a góorgóorlu ci ay nawafil dafa war a gën a góorgóorlu ci ay askar ku seetlu fi ñu toll nii tembe bi ñu doog tàmbali jàkk yaa ngi doon fees dell waaw tabaarakallaahu kenn ku ci nekk sensé solin kenn ku ci nekk sensé comportement waaye soreegul am nañu commencé bàyyi bu ñu bàyyi <laughs> nañu yokk nañ yokk góorgóorlu nañ yokk góorgóorlu am na benn yi bu baax dafa waxoon ne man de damaa gis boroom xam-xam yi di werante kenn ku ci nekk na laylatul xadar bi sàngam la ci weeru koor kenn ku ci nekk na laylatul xadar bi sàngam la ci weeru koor man de dinaa dajeg laylatul xadar ñu ne ko nooy dajeg moom mu ne su bis bu weer wi xasee tàmbali premier suuru koor gi laa jàpp ne laylatul xadar ya ba keroog ñi gis weeru guddi gu ñëw rek dama yokk samay jaamu yàlla damay gën a góorgóorlu xam naa na kon dinaa dajeeg laylatul xadar ah kuy jaamu yàlla noonu nag yàlla mën na laa dimbale fa tabaarakallaahu la ñuy tuddee bis yu mag yooyu ci biir weeru koor di nga daje ak moom kon nu weeru koor yi gën a jàlle gën a yokk nga war a gën a yokk say jaamu yàlla boo demee ci fukki njëkk yi jaamu ci yàlla bu baax bu ñaar la fukki yokkal la nga doon def gën koo yokk ndax kat jawaadun laa yemmalu ala yàlla ku baax la ku tabe la te du découragé mukk fi nu yéen a ngi taxaw di ko ñaan inna haada diin matin aw xilii yi bi rifqi muraado tasilli kon nag lislaam dafa nekk mbir moo xamante ni soo ca xasee dugg bay doxal rek bul arrière mukk bul am tànk ginnaaw avancé rek mu gën a continuer ni ñu sensé comportement yi kenn ku ci nekk la nga daan sol te nga jàppoon ne lii yiwul teg ko ci suuf kenn ku ci nekk fa nga daan fréquenté te jàpp ne lii doxul teg nga ko ci suuf kenn ku ci nekk melokaan ba nga jàpp ne wii gërëmuñ ko teg nga ko ci suuf góor-góorul continuer ca su weeru koor yi jeexee nga continuer ca ndax lu baax moom du ràpp du màggat mukk laa sa sala wax na ne mbaax du ràpp bakkaar de su ko fàtte ci xadis bële comme bakkaar nag da ngay góor yàlla effancel la ko te mbaaxit du ràpp noo gën a góorgóorlu ci mbaax muy gën di yokku kon kenn ko ci nekk na góorgóorlu nu weeru koor yi gën a màggee nu weeru koor yi gën a yàggee ngay gën a yokk say jaamu yàlla rek waaye bu ñu yokkat ci jaamu yàlla bu ñu yokkat ci yàlla bu ñu yokkat ci julli julli nag jooxal julli juróom bu ñu ko def léeg-léeg ni ko ñenn ñi di defee soo xëyee koor gi jàppaloo rek nga faat waxtu farata yi am na ci ñenn nit ñoo xamante ni classe Aliou Ndom gi Mouri Assine ñoom ñoom tabaarakallaahu julli day jot rek dañuy or rek daal di tëdd benn place du ñuy jóg mukk wala nga mel ni génn góor gu ñu wax daam kaañ nekk fële Kaolack moom bu xasee or dootu jóg fi mu nekk day tëdd rek waaw julli juróom bu jotee du julli tisbaar du julli taksaan waaw léeg-léeg mu dem ba ba ndogu ba lekk ba suur door yi toog na gàppur fas yéenaa fay ma ku la <laughs> day day mbir yu doy waar góorgóorlu joxal julli juróomi farata yi lu ci am solo la parce que nit mënut a sàggane julli juróomi pare di taxawal naafila loolu mënul nekk li gën mooy da ngay taxawal juróomi bu julli jotee jógal jàpp julli tëddaat waaw julli yàggul waaye or rek tax nga bank benn place doo ci mukk waxtu julli yëpp mu bëgg boolee boole dajale leen loolu doy waar la te ku gëm yàlla nag gëm bés penc dafay taxawal julli juróom. te yàlla waxoon na ci alxuraan su ngeen bëggee tàqaliko lu bon su ngeen bëggee moytandiku lu bon taqoo leen julli inna salaata tanha anil fasaai wal munkari ne woon na ci alxuraan jullikat dafay tee nit ki dafay dox dafa lay baare dafa lay aaye dafa lay aar ba lépp luy lu bon doo ko def kon góorgóorlukat di julli da ci baax surtout nag julli yu juróom ndax dama seetlu tabaarakallaahu léeg-léeg nit ñi ñu fonk naafile yi lool sàgg na julli nekk ci bëccëg gi te loolu farata la yooyu moom ëpp naa sàgg de yooyu moom bu leen ci mel ni Aliou mukk waaw góorgóorlu leen ci jàmm ci yàlla bu baax a baax a baax te di ko jooxal yonentu salaa sallam aaye jooju sax ji yàllay wax naan julli daf lay baare ba doo def lu bon daf lay dimbale ba yépp eh, luy lu ñaaw mu jóge ci yow waxoon na ne wala zikrullahi akbar tudd yàlla nag moom moo gën a foor moo gën a màgg kon soo boolee julli ak tudd yàlla tabaarakallaahu day gën a foor day gën a baax rek kon nit ñi nañu lu waat nu weeru koor yi gën a jàllee góorgóorlu ko fukki njëkk yi la ci yàlla diggoon yëpp am nga yaakaar ne def nga ci sa kem kattan tey yaakaar yàlla mu nangu ko ndax baynal xaw fi war a ja sër kon bu boobaa ñaareel fukki bi comme yàlla digal na ne njëlbeen fukki yërmande la góorgóorlul màng ko bu ñaareel fukki bu fekkee ne moom mooy maxfira góorgóorlul màng ko ñetteel fukki bu nekkee ne mooy atqu mina naar góorgóorlul ba yaakaar ne am nga ci dara yàlla nag moom du tas yaakaar yi jaam bu ma yaakaar waxoon na ko ci xadiisul xursi yonent bi sallallahu alayhi jot na ne yàlla kat du tas yaakaar yi jaam bu ko yaakaar yàlla na yàlla boole ñu dibbale dibbale leen yàlla kàttanal ñu ban man ko wóor ci ni ko yàlla bëggee paa ñun niñ ko bëggee yàlla dimbale ban mañ koo def def bu yàlla gërëm def bu dool dëppook sunna ndax kat li wax ji di bëri bari ak li def bi di bari bëri nañ fexe bu dëppook sunna maam Cheikh Alhaaji Malick dee na yowmal qiyaam ko indi lu dëppookutu sunna yàlla daf la koy delloo kon kat kuy góorgóorlu na góor jéem jéema dëppale la muy def ak sunna kuy góor góor góorgóorlu na góorgóorlu jéem a def la muy dëppale ak loo xamante ni xam-xam nangu na ko su fekkee ne yàlla dogal na yow xamuloo ko laajal borom xam-xam yi ñi ko xam laaj leen bul def mukk ci sikk sàkk bul def mukk ci def defle lépp looy def na nekk loo xam gëstu nga ko ba xam ko soo ko xamulee da nga jege ku la xam lool koo xam bis boo ko woowee mu waxal la soo ko laajee mu teqantal la teg la ci yoon te lam lay doxee lu baax lay doon gën lay doon foofu it nañ ci bàyyi xel bu fekkee ne laaj dafa jot nañ laaj boroom xam-xam waaye su roy jotee nag nañ fi bàyyi boroom xam-xam yépp roy ñi teg seen tànk ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa yasal al ulamaa wa yaxtadi bil mutabiina li sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu baax tabaarakallaahu di leen baalu xaq di leen ziar di nuyu sama cameraman bi ma jàkkaarloog Cheikh Abdallah ñu ngi koy nuyu baax di ko ziar di ko ñaan yàlla yàlla na yàlla dolli ko tawfiq yàlla nangu ak kooram yàlla nangu ay nawaafilam Pape Dodo ak waa régie yëpp tabaarakallaahu ñu ngi leen ziar bu baax macha allah équipe technique bi fi nekk yëpp asaatiisa yi fi ne leen di baalu xaq di leen baali xaq di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla doon leen dëgëral bi jaayi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Quand on est une jeune maman, on n'est pas toujours sûr de ses gestes. Choisir les meilleurs soins pour son bébé est parfois difficile. Moi, j'ai demandé conseil elle m'a recommandé BabyMed. Des soins hypoallergéniques adaptés à la peau fragile et sensible de mon bébé. Une gamme complète pour que chaque toilette soit un moment de tendresse qui participe à son bien-être. BabyMed, son premier soin